asalaamaaleykum mbokk yi di leen gërëm di leen sant si li ngeen di déglu seen podcast yeewu si épisode tey bi dañuy ñëw waxtaanee si réseau piir to peer bitcoin bitcoin léegi xaalis la nit yi dañ koy jëfandikoo pour jënd ak jaay pour yónnee pour jot bitcoin biñ ko doon créer à la base c'était pour xeex benn système financier ba nga xam ni pour nga denc sa xaalis wala pour nga yónnee sa xaalis forcément da war a jaar ci kenn mooy banque yi et que banque yi gis nañ seen gestion nu mu fa demee année yi yëpp heure bu leen neex ñu créer xaalis heure bu leen neex ñu jox ko ay nit heure bu leen neex ñu tëj ay compte nit heure bu leen neex ñu bloqué ay virement et cetera donc bitcoin dafa ñëw bëgg a changer loolu via lu ñuy woowee décentralisation maanaam du am benn entité central du am benn bopp. donc loolu c'est possible grâce à lu ñuy woowee ay nœud yi nga xam ni ñu ngi daw un peu partout dans le monde foo dem continent boo dem am nga ay nœud bitcoin léegi nœud yooyu noonu nan la ñuy permettre système boobu noonu mu dox si lu ñuy woowee consensus consensus mooy déggoo nœud yooyu yëpp dañoo déggoo si en ensemble de règles d'accord ci bés bu nekk ñu koy vérifier te ensemble de règles yooyu yëpp c'est pour que nœud yi. d'accord ci benn affaire ku nekk ñaata la yor ñaata la am say bitcoin ak kañ la ko am loolu moo tax ñuy wax blockchain parce que loolu lépp dafa dañ ko bind si benn chaîne de bloc chaîne de bloc boo xam ni ça contient transaction yëpp nœud yi nan la ñuy jotantee nan la ñuy déggoowee nan la ñuy communiquer parce que dañuy yónnante seen bopp ay message tout le temps loolu la ñuy woowee peer to peer léegi nañ jéem a dugg ci détails yi. balaa ñuy commencer il faut déjà ñu wax ni ci réseau peer-to-peer bitcoin bi tu as différents tout comme soo jëlee benn groupe xarit ku ci nekk du ci bokk personalité ku ci nekk du ci bokk taille et mais au final groupe xarit lañ bi doxandoo ensemble buy partager ay informations ensemble. bitcoin tamit noonu la mel si réseau peer to peer donc tout d'abord da nga am client bitcoin core boo xam ne mën nga ko télécharger à partir de Github moom mooy référence bi c'est-à-dire que à la base moom la ñëpp doon utiliser avant que ñeneen créé voilà seeni copie quoi donc si biir bitcoin core di nga si fekk benn portefeuille en tout cas tu seras capable defaral sa bopp ay portefeuille wala benn portefeuille di nga si fekk benn fonction pour minage di nga si fekk blockchain bi si boppam am na ay options quand yoo xam ni ça te permet de bañ a jël blockchain bi yëpp parce que à l'état où je vous parle là c'est environ ay 300 mais am na ay mode yoo xam ni tu peux le faire nga jël juste euh, quelque blocs et ça va revenir peut-être à 30 gigas et enfin soo ko installé da ngay intégrer réseau bitcoin bi léegi ñu si bëri yooyu lañuy woowee benn full node full node parce que au delà li ma leen wax nii nœud bi dafay valider tamit règle yu consensus bi yëpp day valider transaction yi le bi tamit ça vous permet de estimer seeni frais de transaction mais loolu mën nañ si ñëw si benn épisode vraiment dédié au full node ensuite beneen type de nœud bi mooy les solo mineurs maanaam kenn koo xam ni duggul ci benn pool de minage dafa bëgg a miner ak propre matériel am et à partir de Bitcoin Core wala beneen euh, wala beneen client ensuite nga am lu ñuy woowee les nœuds SPV mooy Simplified Payment Verification maanaam nœud yooyu comme seen comme comme tour bi nu mu koy indiqué du ñu def validation transaction yi validation bloc bi lu dul mu intéressé leen à part ça ñoom dañoo soxla juste am benn portefeuille bu si nekk soo bëggee recevoir mu vérifier après mu nelaw mun noonu laa leen ko mun a expliquer ensuite am nga poules yi donc poules yi ñoom ils ont leur propre on va dire leur propre algorithme ils ont leur propre protocole boo xam ne dafay ñëw au-dessus du protocole de Bitcoin mais ça permet nga jël différentes personnes différents particuliers yuy miner nga boole leen ci benn groupe bés boo leen découvrir benn bloc ngeen séparer en ngeen partager entre yéen euh, rémunération bi enfin nga am nœuds yi nga xam ni ñoom ils sont vraiment dédiés au mining donc mineurs industriels yi d'habitude ñoom yooyu la ñuy yor mais dans tous les cas que ça soit full node yi que ça soit solo mineurs yi que ça soit SPV yi que ça soit pool yi ou que ce soit mining node yi ñoom ñëpp ils font partie du réseau Bitcoin que gis nañ type de nœud yi il faut dire que léegi entre ñoom dañuy communiquer tout le temps donc c'est comme si dañuy jëw ku nekk dangay ngay jëw par rapport ak yow beneen nœud bi nekk sawet wet lan lay def ak lan la am ak lan la bëgg a def donc euh, nœud yi dañuy communiqué entre ñoom yu yónnente trois types d'information donc nœud yi dañuy yónnente bloc yi dañuy yónnante transaction yi yi nga xam ne dañ leen confirmer ay yi nga xam ni confirmer wuñ leen nœuds dañuy yónnente adresse yi et tout ça se fait via ay messages donc da nga am différents types de message ci réseau bi am nga li ñuy woowee inventory am nga tamit ay appel comme appel web service pour euh, ceux qui sont familiers avec ça mi nga am ay type genre ay get data get headers et cetera après su ñu defee appel yooyu noonu yeneen nœuds yi dañ leen di yónnee information yi da leen yónnee headers yi. donc euh, dañ leen yónnee bloc yi dañ leen yónnee transaction yi et cetera donc noonu la nëy di calcul di communiquer tout le temps à chaque instant donc c'est pour ça nœud bu nekk en tout cas full node yi par exemple dangay am différent nœuds yu lay wër léegi da nga am deux types de connexion da nga wax da nga am lu ñuy wax inbound ak outbound inbound connection yi mooy ñi nga xam ni yow sollicité woo leen laajoo leen dara mais ñoom ñoo lay yónnee information il peuvent être plus de cent su fekkee yow ci l'autorises à ton donc chaque fois de dañ lay yónnee information day ñëw ñoom ñooy ñëw di la nettali maanaam dañuy ñëw ne la eh, am naa transaction bi wala eh am naa bloc bi après yow ci prends ces informations là wala am eh xoolal man créé naa adresse yu bees yi wala sama mbokk ki ma jege créé na adresse yu bees yi léegi nga am outbound connexion tu peux en avoir maximum 11 ou 12. outbound yi c'est yow yaa dem di leen laaj parce que peut-être da leen wóolu yow yaa leen tànnal sa bopp donc ñaari type de connexion yi ñoo am outbound yi ñoom ngay ñëw di def requête yi ay get data get headers et cetera après ñoom ñu yónnee la information bi léegi à chaque fois que benn nit créé na benn nœud bu bees ci réseau bi dafa am lu ñuy woowee initial blockchain download su fekkee yow sa nœud du SPV wala sa nœud du mining node donc su fekkee da bëgg am blockchain bi yëpp depuis sa création depuis la Genesis block en 2009 initial blockchain download boobu noonu ça peut prendre des jour en fonction de connexion internet bi dans tous les cas nœud yëpp yi nga xam ne cu es connecté ñoom ñoo lay yónnee bloc ñu am depuis le début nga koy construire di ko construire di ko construire ba am tout la blockchain. léegi que gis nañu euh, type de nœud yi nga xam ne ñoom ñooy composer réseau peer to peer bi mais aussi gis nañu type de message ñi ñuy yónnante sans non plus entrer trop dans les détails il faut ñu wax ci cinq points yi nga xam ni on a besoin de ça pour que réseau bi dox donc réseau peer to peer bu bitcoin dafa soxla euh, disponible déjà il faut que message yi nœud yi di mën di ko yónnee entre ñoom à temps ndaxte sans loolu du ñu atteindre consensus sans loolu dañuy am plusieurs versions de la blockchain et sans loolu aussi nit dina yónnee transaction am xaar lu yàgg balaa ñu koy valider. deux il faut que mu gaaw il faut que message yi ñu éparpillé wu ci réseau bi yëpp mais vraiment dans un laps de temps assez raisonnable par exemple instant bii nii soo leen defee benn transaction ñu dugal ko ci benn bloc. bloc bi ça prend environ quelques secondes balaa muy éparpillé wu ci nœud yi nga xam ni yëpp ils sont visibles dans le réseau à travers le monde loolu la ñu soxla. trois il faut que mu accessible il faut que nit yëpp peu importe foo mun a nekk que ce soit Europe Amérique Afrique Asie que ce soit nga dëkk ci benn ville wala nga dëkk ci village. il faut que yow affaire bi yomb ci yow nga mën a installer sa propre nœud sans que mu coûte la lu cher. quatrième point bi mooy bi gën a important il faut que ça reste privé sa adresse c'est clé publique sa adresse c'est benn script sa adresse c'est benn hash dans tous les cas il ne faut pas que ñu mën a identifier say transactions ñu mën ko lier ak sa vraie identité dans la vraie vie loolu c'est très important dans ce système de décentralisé là et enfin il faut que système bi euh, inclusif maanaam ëllëg suñ defee mise à jour warul affecté transaction wala information yi nga xam ne jot nañoo jàll avant donc il faut que chaque mise à jour prendre en compte lépp lu mu sa xew avant yooyu ñooy cinq éléments yu important yi nga xam ne c'est autour du réseau peer-to-peer du Bitcoin. donc man dama leen di conseiller li may conseiller tout le monde mooy que. pour vivre vraiment expérience bitcoin bi dangeen war a am seen propre nœud de préférence benn full node loolu moo leen di permettre ngeen garder seen bopp seen bitcoin moo leen di permettre yéen seen bopp ngeen di valider transaction ñeneen ñi wala ngeen di valider seeni propre transaction ngeen koy jàllale avec yeneen nœud yi loolu moo leen di permettre tamit bloc yi nga leen di am ngeen di ngeen leen di vérifier seen bopp loolu moo leen di permettre soo leen bëggee yónnee ay bitcoin ngeen bëgga a estimer seen i propre frais maanaam ngeen tànn seen propre frais yi ngeen nar a fay donc c' est important c' est vraiment très important que nit ki am propre nëwam daf ko si ordinateur am donc tu as la possibilité am un full node boo xam ne tu vas da ngay am toute la blockchain donc qui va te peser environ trois cent gigas mais am na yoo yeneen solution yoo xam ni ça existe comme benn prunet node boo xam ni da ngay am juste quelques blocs jusqu'à lu ñuy woowee benn checkpoint et ça va te revenir à 30 gigas d'espace concernant RAM bi il faut benn PC boo xam ni il a minimum 4 gigas de RAM et ça va suffire donc peu importe foo leen nekk ci monde bi il faut ngeen def loolu su fekkee da ngeen bëgg a dund expérience su Bitcoin bi su fekkee da ngeen bëgg a réseau peer to peer bi et ngeen bañ a Euh, délégué loolu benn exchange wala benn portefeuille virtuel ci seen téléphone parce que portefeuille virtuel yi ngeen di gis nii yëpp ñu si bëri ay SPV lañ donc ils ne valident pas forcément beaucoup de choses et ils sont reliés à full node ki leen koy jaay wala ki développeur bi développé portefeuille virtuel boobu noonu donc yéen ñi may déglu maa leen di maa leen di ñaax en tout cas ngeen gën a gëstu full node yi ngeen xool nan lañ koy installer. ñun dinañ ci def vidéo mais c'est vraiment important en résumé réseau peer-to-peer bitcoin benn réseau la boo xam ni ku nekk mën na ko intégrer sans demander la permission de personne il suffit juste de installer benn client soit bitcoin core soit benn ci client yi existé sur le marché nga installé ko nga def lu ñuy wax initial blockchain download su fekkee yow da ngaa bëgg am benn full node et à partir de là ci commence à profiter de sa participation ci réseau peer to peer bi sa nœud day yónnente message ak yeneen nœud yi sa nœud day valider information sa nœud dina la permettre nga garder say propres bitcoin sa nœud dina la permettre nga def ay transactions donc grosso modo lii mooy réseau peer to peer bitcoin am na ay danger am na ay attaques yu ñu koy def saa su ne mais loolu tamit dañ ciy def benn épisode dédié jërëjëf.